ñu ngi fay ci Kayar euh, box numéro. numéro 12. Kilifa def. maa ngi fay sëñ. tribunal la. Baye Jibi Sow. Baye Jibi ba ma ba bergerie. bergerie yaa Aïda. yaa Aïda waaw fu mu nekk. Mboro cité 2000. ok euh, yéen fii tey ci Kayar da nga bokk ci association wala wala lan moo tax nga ñu exposé fii tey. waaw dañuy invité ci waa Kayar yi comme dañuy def benn coalition pour. lié lépp luy élevage en travers zone des Niayes bi. Mhm. moo tax xama nga gars yi invité ñu pour ñëw participer. waaw xool nu mu gën a rafetee rek ñu doxalee ko noonu quoi. bergerie bi kañ la taxaw. bergerie bi nag yàgg na quoi. Mhm. waaw que bergerie bi suñu papa As Ndiaye. Mhm. Baye As Mboro wala Baye Mbaye Ndiaye Mboro moom xaal xam naa ne élevage bi ñëpp xam nañ leen quoi. ñuy papa ñoo doon élevé mais. ñoom daawuñu doxee comme ni jamono ji di doxee léegi quoi. moo tax ñu wëlbatiwaat carte gi ñun xale yi.

Siré Mboro def na ci man 14 mois. sam benn copain bu tudd Abdou Gueye moo ñu ko joxoon quoi. waaw mu ngi ko jëlee woon ci Siré Jaxate. bi mu ko yor benn waaw. waaw bu parcelle bu bergerie alhamdu quoi. moo ko joxoon après bi mu ci liggéey bi mu ci commencé liggéey ñu gis que ne maal bi day def résultat. te suñu job dafa dañ ko war a améliorer. ci lañ ne dañ ko dem jëli yokk liggéey bi quoi. Euh, moom euh, est-ce que production am euh, yaa ngi ciy jaay wala. waaw production am nag jaayaguma ci quoi li ma ci njëkk a produire nii sax génneeguma ko pour wan ko gars yi quoi dama koy nëbbu ba ci kanam. waaw da ngay liggéey quoi. damay liggéey waaw dama bëgg ëpp tuuti. ok ma euh, femelle bu marron bi moom mu jekk lool kan la. femelle bu marron bi waaw moom doomu Papi Dieye la Papi doomu macha allah yaayam di doomu Messi bu bergerie Ndaw et Frère quoi. waaw ñaata moo la. kii instant bii moo ngi ci 21 mois. bu weesaale bi. bu weex tàll bi doomu kii la Modibo Modibo doomu Talla Talla doomu grand Talla grand Talla nation quoi grande moom moo ngi ci 16 mois quoi waaw. ñaari tëng yi me fi gis ku leen jur mal bi. non tëng yi kenn ki doomu Njoloor la Njoloor doomu Roi Bachir la mook maron bi moo ñoo bokk yaay. waaw bu ñuul bi ak maron bi. waaw bu ñuul bi ak maron bi ñoo bokk benn yaay quoi. ñaata moo la ñam ñoom. kii ñoo ngi dugg ci seen sixième mois nii quoi. yaa ngi judd la. waaw sa numéro la sama numéro 77 457 69 56 bi asliwu arobase hotmail point com waaw ku la bëgg a fan nga nekk ci Mboro. maa ngi Mboro cité mil quoi boo ñëwee ba ci station Total bi route de Mbaye Mbaye cité 2000 premier loo bi rek maa ngi foofu noonu quoi. jaajëf jaajëf rafet na ñu ngi bëgg ci yow. jaajëf jaajëf ku baax. egsi leen ak jàmm ci bergerie Seydina Mouhamed yow mi bëgg a yar ay laatum yow mi bëgg ay xar yu baax ay xaru ras benn adresse ci Sénégal ay laadum pur sang ci femelle jeune mâle wala mâle bu jaar yoon fii rekk la dootul feneen fudul fii waa Sénégal ñépp leen xam ci xar yu baax fii mooy bergerie Seydina Mohamed nekk Asegna yëmbal ci wetu garage clando exil sa aajo faju ku ñu naxati ci xaru raas wala xaru laadum yow la neex soo bëggee ku la conseiller wala ku la teg ci yoon nga mën a am ay xari laadum yu gën gaaw ci 76 488 54 wala 77 464 93 99 wala nga daagu ndànk egg yëmbal segna garage clando ñu jox la ay xaru pur sang ay xaru laadum original fii mooy bergerie Seydina Mohamed.